am dee ko woote nel bërét ñaar fukki fan ci tamxarit mbokk ki jaambur ak xarit bu kenn geesu nganteem Cheikh Moustapha du woote neen bul wuute lii du neenu neen tëlëm cëlëm du ngeen ko seen fàddu na wuggi baadaya xam-xam ba raw na seeni daab xamena sunna tok bi da kangam bu reey la monu da hubbe masal yu lënt ak yeewu jonn yeewu leen ngëmmeen tuwéy gimile gimmi leen rek ñongi fi ci eh, magal gi pas yene dekk sun kaddu president section bu tuba bi nga xane euh lepp lo xane mi ngi aju ci magal gi eh, mi ngi ci ay loxom wax deug yalla mu koy taxaw taxaw bu am solo te wax dëgg yàlla liñ gis ci suba ba léegi wax dëgg yàlla amul len len len len luñ mën a wax loo xamante si mooy lu lu rafet la ñu leen di sant bu baax ci liggéey bi di leen jaajëfal kon dañuy jël kàddu dégg ko suñ mbàkki sëy bi nga xamante ne si mooy jëwri ni jëwri ni section bu Touba bi ah, bi nga xam ne moom moo boote ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu dégg koy kàddu rek mu fësal ay yéeneem ci liggéey bi xëy na dana euh, sant ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi booba léegi ak fi ñu toll ñaax leen ñu àggale ko ci alhamdulilahi Bismillahirrahmanirrahim. bismillahir ta dara wax de yalla manki wut kon seigne mbacke sey loy andi ay cadre rek ci cadre yo inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim abi kalam fi sudur khawmi al mu'minina muhniyan khallami assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen siar te jéggalu ko bu baax di joxe wàcc waayu kawe di ñaanal bu baax serigne cheikh diaw mansour mu yàgg fi loolu te wér ci barke serigne touba ak ay rakam comme ni ko Baye Ndiaga waxee wax dëgg yàlla depuis boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi di sant nag bu baax a baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu ñu liggéey bi euh, di ko tàmbalee ci bureau bii nga xam ne daanaka mees naa wax ne euh, li ëpp ci liggéey bi ñoom la ko bokk seqal ñu taxaw ko ba mu fii ñu ngi leen di sant bu baax di sant ñëpp mboolem ku fi ku comme ni mu ko waxee sànq rek euh, xam ne ni ñu ko tàmbalee ni ñu ko tàmbalee nii di ñaan suñu borom mu doon tàmbali lu mucc ayib wax deug yalla ta kawe njort lol ñuy ñaan yalla suñu borom rek mu dimbali ñu defal ñu tawfiq wat bismillahi rahmaani rahim ñu ko tambalé ñu àggale ko ci alhamdullahi rabbil alamin waye nak ñi ngi sant mboolem ko xam ñew na fi te wala nga jëf fi wala sax nga am yene ñew fi wala nga am yene jëf fi ñëpp mboolem commission yëpp communication comme ni nga waxe njaga ñi ngi leen sant bu baaxa baaxa baax ak organisation fi ñu taxaw ak secrétaire ak mbolam ñepp rek ñepp rek bayiwuñu kenn xamna buñu nekké di lim indi man na waral ñumte am mo waral dal kat kat yi euh ak xawa a bett keeg yu ni mel mo tax ñu ngi tub bu baax baax waye ñu ngi sant dal sant dal dafa mënut wess sant bu amul lu gëna kawé sant ñu tek ko ci loxom ñepp di ñaanal nak bu baax suñu jeex jaw Mansour suñu borom yàggal ko fi lool do may ko ak wër ñu yàgg ko fe fek ta yàgg jëfé ay ndigalam ci barkeb cheikhul khadim waaw jërëjëf suñu Mbàkke xam naa benn question rek comme yow yaa jiite liggéey bi yor lépp ñuy laaj ndax maam xëy na maanaam li nga doon séntu ci bis bi ci wàllu xéewal ah, maanaam ni ngeen ko bëggee amee ngeen ko ko yaakaar nga ne daal bis bi moom da ngeen ci dugg ba ci xëy na maanaam maanaam xéewal yi dana mat xëy na maam mën nañ na bor am wala maam bis bi ngeen doon séntu daal ndax jàpp nga ne jot ngeen ci wala waaw wax dëgg yàlla ñi ngi sant nag ñi ngi sant comme noonu nga wax noonu ñi ngi sant mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi moo moo xam maam personnel bi la muy muy benn benn yi nga xam ne dinañ jëflante ak ñoom ci jàpp gi ci jàpp ñuy joxe leetar wala jaayante wala lépp rek mboolem fi ñu ko séntu woon wax dëgg yàlla ñu ngi ciy ñu ngi ñu ngi ciy am njort lu kawe lool jàpp ne ni ko bëggee dinañ ko ne amee moo tax dañuy sant bu baax a baax a baax maam rafet na njort lool ci maanaam euh, comme bis serem bi ni ñu ko programme ak ni ñu ko doxalee ak wàccaay wi ñu ci amal yaakaar na ne dina gàccal bépp màggal gu fi mas a aw ci ci ci ci mboolem xéewal ak lépp rek lépp lépp lu lépp lépp lu ndaa waajal benn waajal nañ ci ñaar ba ñett ngir fexe ba dara du manqué képp ku fi ñëw dinañ fexe ba nga nekk ci condition yu baax dinañ fexe ba xéewal yeeg yëpp doy loolu moom fas nañ ko yéene te incha allahu taala rafet nañ ci njort te ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu ci ndam kawe kawe ndam li nag mooy ni ñu ko bëggee ñu amee ko te bu noppee dara ay bor du ci topp wala leneen ak leneen loolu moom ñu ngi koy séentu te nañ ci njort bu baax a waaw jërëjëf jërëjëf suñu mbàkki kàddu yi am na solo lool ñu ñaan suñu borom taxawu leen rek comme ni nga ko waxee nii mu àgg ci alhamdulilah rabbil alamin kon dañuy ñëw ci borom xéewal yi nga xamante ne ci comme ni nga ko waxee rek muy suñu mbàkki Jóob bi ah, yi dañ nekk fii ci waañu comme ni ñu ko waxee rek bi ñu jógee ci suñu mbàkki say dañuy ñëw ci euh, euh, ci suñu mbàkki Jóob président fédération bu organisateur bi kon suñu mbàkke bu ñu bëggee xam xëy na fan ngeen toll ci liggéey bi ci wàllu añ yeeg yooyu xëy na ñaata ngeen taal wala li ngeen taal la jàpp ak mbooloo mi gis jàpp ngeen ne moom incha allah ñëpp daañu xewlu comme ni mu waree suñu bàkk. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di di leen siyaare bu baax baax di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp rek di leen sant bu baax baax ak sant mboolem ñi nga xam si ñu ngi fi teew ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal si seen taxawaay ak seen teewaay liggéey bi wax dëgg yàlla fi ñu toll nii ñu toll nii ci liggéey bi de oh, ñu ngi ci rafet njort bu baax a baax si xéewal yi ci xam ci moom lañ toll <coughs> toll ci liñ jotagoon a teg nii ñu ngi tollagoon ci 18 mën yoo xam si ni wax dëgg yàlla gis nañ mbooloo mi fi nekk jàpp nañ incha allah rabbi buñ buñ ci paree dana dana dana dana doy ci ñoom ndaxte ci suba léegi ñu ngi ci wàññi programme ko xëy nekk ci liggéey bi ba fi ñu toll nii wax ni ñu añ yi pare na ajuma moo tax waaye bu doo ajuma sax yaakaar naa fi ñu toll nii dañuy fekkoon añ ba noppi kon daal ci njage foofu lañ toll ci liggéey bi fi ñu toll nii ci wàllu programme nekk ni ñu fas yéene séddale añ yi ba noppi nit ñi jox ko nit ñi ñu ko buñ jullee ajuma ba <coughs> waaw macha allah suñu Mbàkke comme ni nga ko waxee am na solo lool kon mu mel ne gis nañ fi wax di yàlla euh, sécurité bu am solo barrière yu am solo mu mel ne yéen jël ngeen seen i matukaay yëpp ba liggéey bi da ngeen ko def liggéey bi mucc ayib kon xëy na lan ngay jaajëfe membre yi nga xam ne ñoom nga àndal liggéey beeg yooyu pour ñu mën a euh, jël kàddu gi jébal keneen incha allah membre yi ñu àndal liggéey boobu di leen jaajëfal di leen sant bu baax a baax rek wax dëgg yàlla jàmbar lool lool lool depuis une semaine depuis jàpp naa ne ñu ngi ci liggéey bi tey nag dikkati nag mu rawati ñëpp di ko jàpp ci liggéey bi sa barrière yi tamit wax dëgg yàlla dañ koy yàgg di waajal ndax lii moo ñuy tax a mën a partése waañu ba nga xam ne liñ ciy liggéey dañ ko mën a liggéey sa duñ ci am benn yàq-yàq moom xanaa da ngay dikk taxaw ne sa ginnaaw rek waaye fi nga xam ne moom lañ dugal liggéeykat yi moom kenn du am benn surxi surxi ndax fii dafa nekk aw yoon ba noppi tamit boo ko defoon nii ñëpp doo mën a xàmme kan moo ne si waañu ak ku ne ko si waañu so lépp ñu teg ko si loxo yi suñu ñoom ñeen ñu taxaw ko organisé ko ba lépp aw yoon yi ñi ak ànd ko waa sécurité bi ñu taxawal ñu si buntu ba nga xam ne nekkul si waañu def doo am aksi mën a fii si ñoom lool daal wax yàlla ñu ngi ciy jaajëfal mboolem koo xam ne yaa ngi ci liggéey bi rek taxaw ci rek nekk lu am solo di ñaan suñu borom defal ñu lépp léegi ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw jërëjëf suñu Mbàkke mu doon suñu Mbàkke Diop président organisateur bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kàddu yi di jaajëfal suñu Mbàkke Seye bi nga xam ne moo jiite section bu Touba ñi nga xam ne ñoom ñoo yor bànqaas ëpp solo ci biir liggéey bi kon ñu leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal fi ngeen bëgg a àgg ci liggéey bi sëñ bi suñu borom jàpp leen ngeen àgg fa yàlla mën na ko yàlla na ko kon dañuy wéyal rek liggéey bi ci biir euh, màggal gi rek kon jërë ngeen ahlu café ci njiital sëriñ Abdoulaye Ba bisimilah asalaamaaleykum di ziar bu baax waa kër sëñ Mansour Diaw di rafetlu taxawaay bi ak jotaay bi ak yitte gi ñu jox te émission bi ñuy di def nii day wane ne booba léegi ñoo ngi ci liggéey bi ak ñun ñun ñëpp suñu membre démb léegi ñoo ngi ci di ziar bu baax di leen sant bu baax ak si coono yëpp ak suñu waa groupe bi yëpp ñi ànd ñëpp di sant yàlla bu baax yaa ko koo fekk. bu ñu xoolee li ñu tàngaloon daaw day mel na moo ëpp lool lool nag. du ak dellu ginnaaw ma moom ku ñu xam ne instant yi prix café bi mu toll ndax day mel ne ci cëru mokk mu ngi toll su francs moom ren ji moom ku ne ku ne kaas na ko lool moo war ren ji ñu xaw a wàññi kafe gi tuuti xam moom daje muri mënut a ñàkk moo tax bi ñu xëyee suba démb tàngal nañ tey suba tamit dañuy tàngal kay bëccëg sax dañ ko daa amoon nañ ko waaye ren xamaa duñ ko mën a amal ndax café gi kiiwul duñu toll moo tax ñu def café suba ak ak café ngone bu sëñ bu joggé ziar bu ñew ñu mën ko indi ndax heure bu la nit ñi gëna a wo bu ñu soyoon rek sax café bëcëk day am mais ku ne xamné fi jëmay tollu ak café nim séré ndax bu ci bëgg ay ay nangami cuula parce que da nga la 50000 té ku ne xamné ne euh, ren gi dañoo féré ci maanaam beñe bi lu bari ak ak bëgg meew ak was mo tax ñu xaw wañi café gi ndax seeraay bi bu ñu soyoon tamit bëcëk gi café gi nit ñaa ngi ko laaj lool mom met nañu torop ay nak ku ne xamné ni mu démé la diko jéglu jégalu loolu la ñëk jéglu xamné daw dal lepp lepp ma ndax café mu tollon te kilo 1500 2000 ren nak mom ku ne xamne 6000 ba 5000 la jar di tub lolu tax day melni ñun bu ne nee suula màggal ñun lañ ko seg ñi defar baax bi ñu leen jox café timit and suñu mamour soxna yi fi lañ ñepp dañu dañu fa ané seg ba paré que minute une heure ñu dem ñibi ñu xéet parce que biñu ñuy fa fajar ñom sax ñoma yé ñun ñu am passif lañ xam ma waroon judd yété mm. wa ñom ñoma yé yee heure bi jon lañ ñu nekk fi tamit ak ay saaku mburu yoo xam ne suuba léegi si lay nekk di defar am la jeeg mayonnaise boobu léegi di ko jox waa baax bi te gan gu ñëw incha allah ñu dekk dinañu déclaré ñu diw ndékkagul ñu am fu ñu leen dajale jox nañu ndékk magal daal incha allah bëgguñ tamit mi sax pour ku ñëw rek si biir jox ko yéen ba suba incha allah café a amaat suba gi danañ ko fexe même bu ko amul dinañ nit dem ñu jox leen waaw di gën a santar yàlla rek mm-hmm. waa ahlu café bi xam ne tamit maam ji nekk si kaf gi dafa lu metti la ndax jugee sen kër toll ne ba aljuma ba samedi ahlu kafe tey la tey macha allah dañoo dañu neexal dañoo neex nekkal motax kay bi dañu dem ba groupe bi dañ ko fixé ab groupe moy ahlu kafe bi manam ñi fi nekkon daw day melni sax ñoo fi nekkat dañu dem dañu dañoo ku bokku nday bokku baye ba koom fi koom fi gën ne day fanan day fanan kon ci baye mu baye kon ci si yëkkati ñu neex jitt lañ dal di leen sant dal and and bi gëna a gëna jëm sa kanam am na yeneen programme ñu bëggaat waa ahlu café yoo xam ne bëgg nañ kër gi dem dem ba duñ jégaan ne génn kër ci waa ahlu café incha allah rabbi te la jàpp nañ ne màggal maa ngi sant bu baax daal maam di leen gërëm surtout suñ suñ suñu jëruñu jigéen muy Binta Diaw tatal fi aboom yi maam ñu neex a nekk lañ wax dëgg yàlla ba ñu nekkee ba léegi dara ñaawul dañ ñaan yàlla mu gën a yokk sant naa bu baax daal sama xol sedd na te di sant yéen tamit liggéey am solo bi ngeen def nii. waaw comme niñ leen ko yàgg waxee rek ak ñoo ngi nii ak waa ñi nga xam ñi ñooy waa sécurité ñu bëgg si li nga xam si mooy màggal bi nga xam ne si ba ñu xëyee suba ba léegi ñoo ngi si di def liggéey bu am solo yan jafe lañ si am wala yan réussir lañ si yoo xam ne si maanaam am nañ ko si njiital Sëriñ Mbàkke Yadd ak siyaare euh, bi nga xam ne si ñoo ngi koy amal nan lañ ko waajalee ñoom bu ñu leen taataane suñu micro rek daañu leeral gën a leeral nga xam si talibé dina ko mëna gëna gën assalamu alaykum rahmatullah ñu leen di ziar di leen baalaax bu baax te di leen baalaax di ñaan suñu borom borom jéggal di leen sant bu baax di ñaanal Serigne Cheikh Diop Mansour suñu borom yàggal ko lool and ko gërëm ak mbolam jabotu Baye Serigne Diop Mansour gëp nako non tam di sant bu baax baax fekk nga xam ne suñu borom fekk nañu bis bi ñu ci doole sant yalla bu baax di ñaan suñu borom defal ñu ci tawfiq liñ si yéene tamit suñu borom àggaleel ñu lépp ginnaaw loolu tamit dañuy sant bu baax a baax mm, euh, mbooloo mi nga xam ne moom lañu àndal si liggéey bi euh, si suba ba léegi comme ni nga ko waxee rek ñu ngi si góorgóorlu bu baax a fépp foo xamante ne si ne nit ñaa ngi fay dajaloo daañ fa fexee teg nit ba nga xamante ne si ne ña nekk si biir lañ bëgg danañ ko am te kenn si biir lu leen fekk si dafa am benn jafe-jafe loolu lépp suñu borom ñi si jàppandal si loolu kon ñu ngi si doolee sant bu baax a baax ginnaaw loolu tamit wax dëgg benn jafe-jafe moom benn jafe-jafe moom wax dëgg ndax ku nekk fi ñu la taxawloo yaa ngi fi taxaw ku nekk euh, tamit fi la yemloo yaa ngi fi yem kon loolu euh, doy na sant bu baax a baax te tamit siyaar bi comme ni nga ko waxee ñu ngi koy waajal bu baax te si kàttanu yàlla daañ si góorgóorlu bu baax a baax ba nga xamante ne si ne lépp loo xamante si lu lu rafet la lu ba ba mucc ayib ba nga mboolem Kër Baye Serigne Diaw ni ko bëggee rek ñu defale leen ko noonu si kàttanu yàlla ko waa baaxam waaw jërëjëf sëñ Mbacke mu mel ne wax nga lu am solo point bi nga xam si moom nga daaneele muy lu jëm si wàllu ziyaare bi maanaam nan ngeen ko programmé noo xam ne si maanaam ñun ñëpp dinañ mën a dem si jàmm ñëwaat si jàmm. waaw jërëjëf loolu moom incha allah dañoo fas yéene buñ déparé rek fexe ba nga xam ne mboolem koo xamante si si la bi nga yor sécurité lañ si bind da nga mën a jege sëñ bi ba nga xamante ne si ne benn jafe-jafe leen lu nuro gàllankoor du jege sëñ bi benn yoon. loolu danañ ko danañ si góorgóorlu bu baax a baax ba nga xamante ne si mboolem ñi nga xam dañuy jiitu di def yii ngeen di def nii ah, dañ leen fexe sécurité ba xam ne daañu mën a arrière wala ñuy amaat ci dox liñ bëgg a dox te duñ ci am benn jafe-jafe loolu tamit ci kàttu yàlla sóoraale nañ ko ànd ko mboolem donga yëpp nag bàyyiwuñ ci kenn donga laxasaay yëpp mboolem ko ma ci jaar si kër sëñ bi rek bàyyiwu bàyyi bàyyiwuñ la ñëpp bool nañ leen ci waaw te ci kàttu yàlla dana rafet te dana am solo bu soobee yàlla euh, jërëjëf sëñ Mbacke mu mel na am na solo bu baax mais euh, koo xam ne bu ñu jëmee si ziara bi dañuy taseeg ñoo xam ne si ay nit lañ te nit ñi ñi taseel amaana seen comportement yoo xam ne si maanaam xaw na bizarre manam nan ngeen nan ngeen former seen ndaw ñi ba nga xam si ñooñu noonu jëflanté ñoñ ñi si ñi nga xam si moy si respect waaw jërëjëf loolu tamit si kàttan yàlla sidem, ci dem te yaakaar mbolém mbooleem kuñ taseel donte ñu jikko danañ fexé jël suñu jikko ba jox la si ba lañ bëgg ñi am ko jall té do am jafé kebo euh loolu mom waajal nañ ko bu baaxa baax and ak yar ay teggin baña yakal kenn baña yakal len dem si jamm ñew ci jamm loolu mom ñu ngi si xel baax nit ku lu mën di mel buñ ak yow daañu lay jox respect ak gëdd boo xamante ne si li ñu lay wax force da nga ko diglu ba mën ñëw dimbali si liñ bëgg nga am li nga bëgg ñam liñ bëgg ku nekk dem si jàmm ñëw si jàmm waaw kay jërëjëf mu mel ne ñoo ngi noonu njiital euh, sécurité Serigne Mbacke Yade si kàddu yu am solo yi nga xam si noonu la ko waxee kon yaakaar naa ñun ñiy dem tamit war nañ ko bàyyee xel bu baax a baax si ñi nga xam ne si noonu lañ tërale seen programme kon ñoo ngi leen di jaajëfal a baax mel ne leen ko baaxoo waxee rek lépp li nga xam si duppe na si màggal gi rek dina leen ko taatanal tey ñoo ngi si waa secrétariat ñoom ñi nga xam si ñooy ponk bu am solo la ñuy euh, jëfe si wàllu màggal gi ñu jàkkaarloo ki nga xam si mooy sëñ Modou Diop ak soxna Soda Fall ak Serigne Mor Seye yaakaar naa ñooñ ñooy ñi nga xam ne si ñooy jëwrin yi nga xam ne si ñoo ëmb secrétariat dañu leen di bàyyi rek ñu nuyoo jéem a def seen présentation bu gàtt rek si wàllum secrétariat salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di gërëm di rafetlu seen teewaay ci waa secrétariat euh, di sëñ Modou Diop ak soxna Soda Fall mi ko feggool ak sëñ Mor. waa jërëjëf sëñ Modou euh, mu mel ne boo ñu doon wax naan secrétariat yéen euh, nan ngeen taxawee si màggal gi noo xam ne si maanaam tey yéen. Euh, am ngeen si réussir yoo xam ne si euh, la ngeen si xalaatoon am ngeen ko si euh, wàllu secrétaire ak yan jafe-jafe ngeen si am yoo xam ne si maanaam war ngeen ko mën a ñaaxaat ndaw ñi war ngeen ko mën a ñaaxaat ñi nga xam si ñooy waa fédération bi ñu gën leen see jàppale. di wax ne màggalu ren gi moom dañuy réussir lañ ci am ndax ni ko njorte woon yàlla def na bu dee section bu Touba la. mboolem fukki daayira ak ñaar yëpp seen liggéey egsi na su fekkee ne fédération internationale bi tamit seen liggéey li ci ëpp mi ngi egsi su ko defee yi nga xam si daayira yi nga xam si ni dañoo bokk ci fédération bi ci nekk ci bitti li ci mel ne ay dànki ak mbul yooyu tamit seen liggéey mi ngi egsi kon lañ bëggoon ne suñ ko amee muy wàllum bilan kon loolu daayira yi ñu ngi ciy taxaw taxawaay yu baax baax a baax. di wax ne liñ ci soññiwaat rek mooy mooy lenn buñ ci àggatee rek bépp daayira comme ni nga ko defee ren rek ñu defe ko noonu ndax yaakaar naa bu année yëpp doon mel ne comme année tey bii rek yaakaar naa kon liggéey bi dana gën a mucc ayib ñu ngi leen di jaajëfal lu baax a baax a baax baax di jaajëfal waa waa section bu Touba ak waa fédération internationale. ak daayira yi nga xam ne si ni ñoom ñoo nekk Daaru Salaam Danke ak Mbul Kayel ñoom ñu ngi leen di ziar ak yeneen daayira yi ci aju yëpp ñu ngi leen di ziar baax a baax di rafetlu seenub liggéey. waaw jërëjëf sëñ Modou mu mel ne da kon bu ñu euh, jàppee li nga xam si moom ngeen wax réussir ngeen am si si si si si journée lii bi léegi nga xam si yéen a ngi woote beneen appel boo xam ne si maanaam maanaam ñu di ko defee comme nii nii fédération bi nga xam ne si ay mbiram. da si say kàddu maa ngi dégg nga ne tuut tuut la ñëw léegi lan moo waral lool nga xam si ñëpp ñëwaguñ. xam nga fédération internationale nationale ñoom seen addé day jaar ci Mbacke Diop ci it Mbacke yenn temps yi maanaam liggéey bi da koy tënk ba day toog ba euh, liggéey bi xaw wàññeeku su ko defee mu ñëw rendre compte ñu yenn daayira moo fi ndax boo xool lu ci mel ne daayira Espagne egsi na ak Amérique ak euh, Espagne. ak euh, Italie ñooñu seen liggéey egsi na ak euh, Daaru Rahmaan seen liggéey egsi na comme yeneen yi xam si ni jot egsi naam bu sëñ Mbacke Diop ñëwee dana ko dana ko dana ko àggal jot jotal si su fekkee ne tamit seen liggéey yi si ni daana ñëw te ñëwuñu dañuy ñaan waa fédération internationale ñu soñ bépp daayira boo xam si ni ci ñoom la aju ñu soñ leen bu baax a baax ndax ñu ñëw ndax am na daayira yoo si ni daan ñëw bokk ci fédération bi boo xoolee daaw gisuñu leen kon loolu yaakaar naa biñ ko soññee rek nam war a jàpp jàppe dana ko jàppe ndax liggéey bi ko ñun ñëpp ñum ñoo ko bokk ci waa fédération liñ liñ ci man ñu ngi koy def ndax ñu ngi liggéey bu baax a baax ndax ñoom seen bu màggi jub see danañ soññe bépp bépp daayira pour jotale ko liggéey bi ñoom seen liggéey bu ñëw danañ ko jaarale ci Mbacke Diop Mbacke Diop indi ko ci waa waa secrétariat. Euh, jërëjëf sëñ Modou mu mel ne kon ñoo ko déggandoon noonu mu mel ne leer na kon yaakaar naa loolu euh, waa fédération dinañ si taxaw bu baax a baax ñi nga xam si ñoo bokk si si fédération bi ñu jéem a góorgóorlu ba nga xam si seen i cotisation dina ñëw à temps ba nga xam ne si dina dimbale waa waa secrétariat si seen i jëfin mu mel ne secrétariat bu ñu ko waxee mooy se ñi nga xam si ñoo yor wàllu mbind bi jëmaale ko si wàllu finance. yaakaar naa ñaar dañoo boole ñaari bànqaas yoo xam ne si ñoo gën a am doole si si si si programme bi parce que mënoo wax màggal te waxoo finance mënoo wax màggal te waxoo wàllum secrétariat kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ak yaa équipe bi nga àndal di leen ñaanal suñu borom euh, li nga xam ne si jëf ngeen ko euh, sëñ bi fay leen si barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf